mbokk yi amati mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi nu ñu koy defee ak yéen rek sa su ne di leen dalal ay ndaanaan di leen dalal ay kilifa yi nga xamante ne yéen ngi leen di xaar fii ci Sénégal Buzz 221 waaye ni ko noonu nag la ñu dalalati suñu papa joo xamante ne yaakaar naa ni sénégalais min nañ ko fii ci Sénégal Buzz 221 euh, di suñu papa Abdou Bakhoum Abdou Bakhoum nag euh, bu ñu ko waxee xel yépp dina dem fi nga xamante ne moo di Pikine te nag euh, fii laa ko fekk fas yéene seq ak moom waxtaan ci li nga xamante ne nag moo di nekk actualité ci lamb ji dama koy bàyyi rek mun yokk bokk internet yi papa maa ngi lay ziar bu baax Bakhoum waaw jërëjëf maa ngi nuyu àdduna yépp di nuyu diaspora bi nuyu Afrique di nuyu Sénégal euh, di nuyu bokki Dakar bokki région de surtout région Cap-Vert ñu ci jiital Pikine waa yëpp nag waaye fàttewuma euh, departement Diourbel bi ma bokk waa ngoy Aliou Sylla di leen bu baax a baax di leen ñaanal saa borom defal fa tawfiix barke Seexul Xadiim mhm. di leen daal xam ne daal maa ngi leen di nuyu bu baax di leen tàttangal ci kàttanu yàlla. macha allah yaakaar naa ne yooyee kàddu la ñu nuyoowee di kàddu yu am solo euh, ni ma ko waxee rek si sama nuyoo papa ci actualité yi nga xamante ne jamono ji moo xew ci làmb ji laa bëgg ñu waxtaanee ko euh, ñu dooree ko benn bi nga xamante ne nag euh, yàggul dara sénégalais ñu ngi ko doon consommé di komba Tapha Tine ak Boy Niang làmb jooju ni ko sénégalais doon waajee ak ni mu mujjewee nak nga gisee làmb jooju papa. non làmb ji de dama gis ne làmb ji am na calcul quoi parce que booy xool Tapha xëy na daana bëri ni mu bëree ne ma yaay jàpp naa ne am na changement ci bëre bi mu doon bëree. kii di boo ñaa euh, su ma juumul xam naa ne bëri na conseil mais ci conseil bi daal jàpp naa ne bi nga xamee ne première rencontre bi ñu jëkk def. ba am na ci ñoo xam ne sax nañu ma ci la gaañoo ci baaraam. rencontre boobu normalement ci yoon waroon na demee noonu. waroon na demee noonu rencontre bu fekkee ne da ngay def. jàpparle ak mbër moo xam ne bii xëj ne moo la sut moo la gën a yaa tuuti. Mhm. Euh, de ma ma la cat loolu parce que xale yi ñi suñuy doom lañu. Mhm. waaye comme yàlla dogal na moom moo ko xaw a ëpp. Mhm. garde base la taxawee ci kanamam. garde base nag. mbër boo gisee ñu ne entraîné entraînement mooy mbër. da nga war jàng bu la mbër sëkkatalee. ni ngay def pour génn ci bu la mbër touché. war nga xam même sud sax dañ koy jàng boo ñëw. loolu tax ba nga xam ne xëy na am na ci yoo xam ne yi xëy na bëri na xale la mhm. ndax yenn jour yi nga xam ne am na ko yenn journée yi nga xam ne am na ko muy journée mhm. yu am doole yi ci ëpp mhm. mën naa ne bu leen fukk la wala juróom ba wala juróom benn la parce que gañe nag bu dee fukk la gañe na siif yi wala mu gañe ñoom bañ a set yi. keroog bu ñu xoolee papa euh, ni Boy Niang doon euh, di bëree euh, à chaque fois bu ñu daan seetlu combat Boy Niang mbër bu ko mës a bu ngeen jàppantee rek Boy Niang dalay daan mais ñu mel ni keroog dafa am difficulté ci komba ak Tapha Tine ci attaqué bi ko Tapha Tine di attaqué te défendre mooy fort Boy Niang bëre bi comme ni nga ko waxee consigne la wala dafa calculer adversaire am ba mu ëpp wala lan la. waaw calculé na ko mooy mooy li ma la wax rek am na consigne parce que boo xool ci biir jàppante bi sax. Mhm. da gis ne Tapha Tine am na fu ko boo ñaax fàqate mu ñëw. Mhm, mhm. bon loolu bu am doon kàttan loolu mënu ko. mënu ko mhm. fàqat ba mu romb ko. donc ci biir bëre bi xëy na sore na ko ci diggante mënu koo dab pour mën a yeggale action bi. waaye daal euh, bëre bi mu waroon a foorum daal bëre woon mu waroon a bëreeg moom daaw daa waroon a bëreeg moom moo doon fooru. xeex ak moom parce que ku mel ni Tapha Tine xëy na bu wàccee ba taxaw ba tollu yow sax mën na taxaw ci fu sori dee ci sa kaw te doo mën a fayeeku la preuve boo booy fayeesuku bu fekkee dafa laa gis mën na nekk leneen mais aussi est-ce que Boy xeex bi waaw xeex bi sax war doon hmm. xeex bi sax moo war doon xeex bi moo jaaduwu doon daal man lu tax jaaduwul waaw maanaam ci ci bëree hmm. la ëppoon avantage xeex bi moo tax ba nga xam ne Euh, première rencontre bi ñu njëkk a def man maa ngi woon ci kaw. Mhm. waaye euh, booba bugguma lu wàcc parce que foofa doon doon. Mhm. yoona bi ñu leen atte première atte. Mhm. mu def benn sortie mu dellu siwaatee bi tafaatin dem moo war a jiit ci géew ba tafaatin moo war a jiit daw romb ko jéggi ko taxaw position bu baax xaar ko natt ko léegi bu defee attaque dina mën a def daje moom mën a am neneen mu def waaye ci loolu dafa jiitu mu ànd ak moom topp ko mu mu mu sàccaat li nga xam ne bi mooy santé gravité am. taxawaat fa. moom mu taxaw position boo xam ne xëy na ba léegi mënul appliqué. waaye bu fekkee ne bi ñu leen attee dellusiwaat ba dafa daw romb ko. day am position bu baax boo xam ne bi tabaten bu ñëwee taxawee aussitôt day xam bu mu taxaw moom. loolu tax ba nga xam ne bari na daal yoo xam ne am na erreur daal ci la. am na erreur macha allah en tant que mbër mais bi nga xoolee Boy Niang comme ni nga ko bi nduruwul na perte tuuti ci biir géew bi ci bëri bi waaw parce que euh, boobu man maa ngi ci kaw comme ni ma la ko wax léegi mhm. mais ñi ko jege woon ne ñu ci première rencontre bi la ñaari baramam damm mhm. d'ailleurs yaa nga gis ci film yi ñu ngi mhm. koy wane xëy na loolu du du tricage waaye daal jàpp naa ne man xam naa ne ñàkku ne amoon na métti amoon na métti métti daal amoon na métti métti métti métti parce que euh, solution yi mu doon def yëpp ci biir bëre comme mënu ko woon rek. dama jàpp ne am na yaa quelque am na yaa waaw yaa loolu daal laa mhm. xalaat waaw. macha allah yaakaar naa ne loolu mënul woon ñàkk euh, maam Aliou ñëw ubbee ko waxtaanee ko ci li nga xamante ne aussi mooy euh, lamb ji mais bi mu weesoo nag euh, gis nañ yeneen mbir yi nga xamante ne aussi xew na ci lamb ji ginnaaw bu ñu dëkkee micro ki nga xamante ne moo di suñu papa Dégol di waajuru Boy Niang yi nga xamante ne aussi yëkkati na ko bi si njëkk ci laay ñëw 100 pour cent Pikine bi nga xamante ne yéen a ngi koy wootee moom nee na gëmu ko kaddu yooyu bi nga ko déggee papa lan la la def en tant que doomu pikin euh, doon ménager tamit biir Pikine. waaw loolu loolu xam nga moom day wax noonu rek day wax noonu. Mhm. mais 100 pour cent Pikine yi boo seet. Mhm. boo xale yi ci bari sax dañuy wax ne 100 pour cent Pikine yi xale yi bokkuñu ci. la preuve am na bal yàggu rek maa ngi kaas ne ne moom bokku ci yooyu ba léegi gars yi dañ ko def ci ñetti mbër ñeenti mbër yooyu. Mhm. bon pour ñoom xale yi dañoo jàpp sax ne affaire bi ci diggante Eumeu la aman boo Niang daal. yooyu ñoom soq ak yooyu yëpp bari bokk na dañ ci war a bokk waaye. xale yi itam dañu xam ne. Euh, loolu noonu 100 pour cent Pikine. dafa am loo xam ne lii ñun ci suñu bopp war nañu ko mën a doxal à pour cent. ni ñu koy doxale nag mooy. combat yu mel nii di am combat capital yu mel nii di am. Mhm. mag ñi di toog benn côté parce que booy seet déclaration yi ñu def ci. Euh, ci biir làmb ji. Mhm. en tant que le supporter. Mhm. waxtaan ak ñoom man bi ñu duggee ci suñu biir waxtaan. Mhm. am benn panel loolu bokk na ci li ma jë jëkk seliyee comme quoi que loolu bu ñu ko defee ci làmb ji yàlla mën naa dogal violation du am ci làmb ji. te gis nga bi ñu ko defee gis nga ne ci biir làmb ji xañ na ci biti xañ na wala feneen. waaye daal ci biir làmb ji dangay gis ne bii lépp amee ñoom ñëpp dañooy ànd ñi bi génn ñëw doucement yaakaar naa bu xeex amu fa. gaañante amu fa. comme li amoon keroog ci làmb ji foofu. ba nga xam ne daal. 100 euh, pour cent Pikine moom àlakulaay il faut mu mu bu ñu ko dundalee dana dund bu ñu ko dund parce que loolu ci ñun ñii la xaj na mën na na ci ñun ñii la commencé woon waaye en 100 pour cent ñun moom li ñu mën a dox moom ci kàttanu yàlla tànk ñoo ngi dund di ko fekkee am naa yaakaar ne sooba yàlla même mbër mi bu ñu mënoon taxawu sax ci euh, cumikaayam dinañ wax suñu grain de jox ko ko parce que ba am na ci bare bare yoo xam ne waxtaan yoo xam ne yi euh, avant combat bi waxtaan nañu ko Euh, ci néeg boo xam ne bi jàpp nañ ne même diri ko bi tafaati di wax nii waxoon naa leen ne mën naa diree ko ñëw ci see kaw lan lay def mhm. lu ñu war a def mhm. tafatin lan la gën a foore mhm. lu mu gën a kile tafatin ñu ko daan lan lañu ko daanee lan la ko Balla Gaye lan la ko Issa Pouye lan la ko Ama Baldé daanee lan la ko Lac de Guiers numéro 2 daanee ñu xool si yooyu ba xam lan la su fekkee mën nañu répété loolu mais xam nga boobu bu ñu koy wax c'était un peu trop ko mais ci loolu mbër mi ko war ba nga xam ne bu ñëwee bu gisul mu xam mën na appliquer loolu. Mhm. macha allah loolu papa di kàddu yu am solo yoo xamante ne aussi xëy na lu baax la pour nga yëkkati ko mais bu ñu xoolee tey yow yaa ngi ci wetu ki nga xamante ne moo di Ama balde euh, bu Ama bëre ak ki nga xamante ne moo di Tapha Tine la xanaa 100 euh, pour 100 Pikine bi comme dama ciy ñëwaat rek euh, daanu leen woon daje di waxtaan ci combat Boy Niang bi fak ngeen ngi mën a fan ngeen war a mën a jaar pour am ndam ci moom wala yéen ku ci nekk rek day gérer mbërëm. waaw man nag. xam nga mm. ci ci ci. ci préparation yi dafa fekk. sama problème tukki woon am yu bëri yoo xam ne waroon nañu ko mën a mhm. régler euh, ci yu bare bëri am na ci foo xam ne xëy na fu bare bëri mënu faa dem mhm. euh, fu bare bëri ku mel ni Jules Baldé mënu faa dem à cent pour cent mhm. fu bare fu mel ni man mënuma faa dem léegi dañoo séddoo rek pelloo bon xam ma man damay xëy liggéey samedi dimanche bi rek laay am avantage pour man def yooyu waaye daal li wóor mooy man xam naa ne ci kàttanu yàlla combat bi ay kilipa ñun ñi mag waxtaan lañ ci. Mhm. waxtaan woo xam ne wu sori la. Mhm. woo xam ne wi jàppoon naa ne xalaatoon naa ne xalaat naa ne. Mhm. loolu dugg na ci euh, noppam mais nag. làmb bu boo nee ñàkk rek boo ñëwee cuuna ngay doon. boo ñëwee cuuna ngay doon ba tey euh, ci yeneen kàddu yi nga xamante ne rek xëy na suñu papa dégool yëkkati na ko aussi ci ñàkk euh, juboo ak ñàkk déggoo yi nga xamante ne amoon digganteem ak Boy Niang laata combat bi di yegsi yooyu kàddu mu yëkkati aussi en tant que yan kàddu rek ciy delluwaat askan bi ngir mën leen a delluwaat ci waxtaan non loolu loolu sax waroon na wax waroon na jib ci ay ci ci ci ci ci rajo wala télévision. Mhm. boo dëggal nag nit la koo xam ne kii naturellement bu meree rek noonu lay réactionné même bi mu nekk en activité. Mhm. bu am na yooyu bu ko mësee ñàkk sax da ngay gis ne ñuy calmer ba sonn quoi waaye. Mhm. day du ñàkk day wax ci yooyu daal day ci day xolam day tàng te bu xasam xol tàng xëy day wax lu koy wax de n'importe qui mhm. donc loolu baaxul daal loolu baaxul am na gi dégg naa léegi sunu benn grand doon ko ci ñaax mhm. ba nga xam ne xale bi ba muy ñëw mhm. làmb ja gis nga làmb ji ni mu feesee ñooñu ñëpp ñëwuñu kër dëgal reere wuñu fa ay doomi jàmbur lañu bëgg doomam ànd ak moom yóbbu ko ca làmb ja ak lu mën a xew rek yow même bu fi keneen di wax sax calmer leen rek xale buy jooy bu ñëwee calmer ko ne ko eh nangam ak nangam parce que nit ki ku la jiitu ci déggu la nam moo lay wan fi ngay toogee mhm. moom lu xale bi bëre bëre bëre bàyyi ma ko jëkk bëre mhm. moo ko jiitu ci làmb ba léegi mu ngi ànd ak ba léegi yàlla nga koy may muy tuus sax mu tuus dand ak moom mhm. di tuusa nag moom ak Mansour Diop bàyyam ko may mais am na âge yoo xam ne tey jii mënuñu loolu sant yàlla daal xale bi di xale bu baax boo xam ne bii euh, démérité wul quoi parce que euh, attention combat lay boo xam ne bi xañ na ñàkk na ko. waaye nag euh, gagné na combat yu mel nii ba tey ba ba nga xam ne ñun waa Pikine vraiment euh, am na ci ñoo xam ne metti na leen ñun ñëpp metti nañu trop waaye nag yaa nga da ngay xam ne sunu borom tabaaraka taal nag moom du ne waaw jaam ne déet. Mhm. li nga xam ne loolu rek la def na. kem tulaay kàttanam gaañu na xëy na am na complexe ñëw na man damaa gaañu ci biir làmb ji mhm. bon mënu ko wax. noonu la mën a def xëy na def na foofu sax heure parce que dañuy xaaj xaalisam cinq avertissement si kii chiffre yooyu noonu sa xaalis day dem day sa xaalis day néew néew sa deux millions cinq trois millions ba nga dem wala trois millions lool cent cinquante loolu nag ba nga gaañoo ca saasa nga koy déclaré arrêt de machine am na ci entraîneur baa ngi fi moom papaam wax na ko sax papaam ne ne moom bu ko wanoon day arrêté la combat bi bon loolu lépp mënoon naa nekk xaalisam dem comme day combat mu entraîné ji waat romance mën nañu ko tëggaat fekk mu préparé ndax Tapha Tine bi ma gis nii ah naqar wu la bëre la ah. xëy na nu mu ni mu demee la rek la waaye xale bi mënu naa ak moom bëre bu neex a neex a neex la preuve mooy bi ñu bi ñu jàppante da ko xaj fàq ko xajal ko mu romb ko donc loolu xañ ne bu ko bu ko kole woon balay tafaatin di jógaat ak taayam mën na def dara waaye daal euh, gis naa ne daal bëri na quand waaye daal ni nga xam ne noonu lañ waroon a bëri à cent moom ak tafaatin daal bëriwul ak moom noonu bëriwul moom noonu loolu aussi di conseil bu am solo boo xamante ne xëy na suñu frère Boy Niang la ko papam Abdou Bakhoum jox waaye beneen papa euh, ba tey ci cent pour bi aussi duma ma génnaguma ci quoi parce que papa Digol am na révélation boo xamante ne aussi def na ko ci ki nga xamante ne moo di Eumeu Sène ci kaddu yu Lac de Guiers yëkkati woon euh, diggéem Euh, ak euh, Boy Niang di xam le ni rek am na loo xamante ne euh, bëggoon na ko ci Boy Niang Eumeu Sène moo si dox ba Père de di confirmer waat loolu noonu ci diggante Eumeu Sène ak Boy Niang kàddu yooyu aussi ba tey bi nga ko yëgee wala nga dégg ko nan ko jàngatee. non du ci rafetlu dara parce que li tax mooy du ci rafetlu dara mooy. ñaari xale yi ñaari xale yu am complexe lañ ci ñoom ñaar. dañoo bëggante la preuve mooy. du fu bare bare dañ fay ànd. man xam naa ci dara. muy Eumeu seen parce que seen Sène fii nga toog nii. fi la doon toog fii ci man mhm. boobu ñoom ñii mënuñu bëree mhm. mu dem équipe nationale ba toll fi mu toll man maa ko yóbbu contrôle ba muy dem moom ak Yékini bi Yékini tas mhm. fédération bale ca Niger ñoom mooy moo ëma seen mi lee àndoon Burkina Faso kon mu am médaille d'or indi ko ak médaille d'argent moom ama seen te mënoon a am mel ñaari médaille d'or Yékini indi ñaari médaille d'or tas fédération ba ku mel ni kooku nag bu fekkee ne dafa la dafa la collé muy koo xam ne kii Eumeu Sène mën na préparer mbër mën na def former mbër ba mu nekk mbër moom Eumeu Sène parce que am na xam-xam bi mhm. te jàpp naa ne gis naa ne sax ñàkku na ay mbër yu bari yoo xam ne ci loxoom lañ jaar mhm. ndax xam naa ko bu baax a baax sama doom la mhm. maa ngi ko de passage maa ngi koy nuyu waaye daal loolu mu wax noonu man jàpp naa ne mm, ci diggante ma ko Eumeu Sène jàpp naa ne noonu bu ñu ko vérifié ba ca am ba ba ca biir daal damay gis ne man mënuma ko gëm daal tànk xëy na loolu li mu wax noonu ma vérifié ko ba xam ne réalité waaye jàpp naa ne loolu mu wax noonu daal su pas preuve de compte man gëw ma ne noonu la demee. ndax Pape Pape ngoom Pape ngoom mii magam moom seen Sène. ak euh, kii dégg naa sax ci open press bi mu nga fa woon. nga xam ne ko ni yéen nañu ko jàmm loolu daal loolu daal xam nga combat bu jeexee bu amul bu ngeen bu sago rek lu nekk lay mën a demee ci wàllu woowu waaye kenn waru loonu dégg lii coow yi di am lu dal la dégg xale bi mënoon naa daanoo noo xam ne nii du neex kenn mm. mën nañu ko dóor mu daanu ci làmb ji maara dañ taal yi mm. mën ko yenu ba ci kaw dóor suuf mm. mën nañu ko gën a blessé blessé bu gaañ toj bakkan bi yàq gaañ ko bañ naa yóbbu leen ko ardo ñaata yoon la preuve mooy tapatin bi fi dajee ku mel nii Elton gis nga ni mu def ak moom daje fekk bombardier mi nga xam ne bii dañ kenn du wax ne mu def ak moom mais méthode bi mu bërek tapatin ba gaañuwul à 100 pour cent vraiment affaire boobu jarul daal xëccoo daal ba war a wax ci waxtoo xam ne jii daal àdduna koy dégg la ci xeeb daal. Mhm. mën na ñàkk. mën naa ñàkk yaakaar naa ne aussi loolu tamit euh, message bu am solo la boo xamante ne suñu papa Abdou Bakhoum moo ko yëkkati waaye.